asalaamaaleykum. waaleykum salaam. carte d'identité laa bëggoon defarlu. toogal. noo tudd. El Hadji Massar ibnu Moussa ibnu Ibrahima ibnu Sadiq Fall. non loolu lépp xajul ci carte d'identité bi. commissaire li ma wax nii de duma si dindi virgule. brigadier kaay. ay ay sama ndey way ay ay ay. nga ni tudd.